Awadi Supanda, un international. Voilà que le monde connaît un ennemi. Quand l'épidémie est générale, c'est la pandémie. Pour le moment, la solution, c'est rester confiné. Se laver les mains à tout moment, ne pas contaminer. Bisim la ñi de ti dor delu sakku ñaan di ñaan yàlla mu nangul nu lépp ko ñaan opération daan corona ak fondation Mbagnick Diop mi wër ndakaaru ak banlieue bi ngir séddale ay junni masque ay téeméeri gel hydroalcoolique niki noonu ay téeméeri gel lave-main carton yi saabu yu bari niki noonu jubluwaay bi doonoon taxawu daara yi marché au poisson bu Grand Médine ñu dëkkee ci bu Patte d'Oie ak yeneen bërëb yu fondation Mbagnick Diop gi wër ci pàttali fondation Mbagnick Diop ba mu juddoog léegi war naa toll ci fukki at waaye at mu yàlla sàkk dana taxawu ci anam gu mucc ayib ñiy wut liggéey dana itam séddale ay ndogu ci weeru koor gu jot dana ñu itam maye deret muy taxawaay wu ñu war a rafetlu lool itam waaw góor ndaw yooya nekk ci fondation bi te yittewoo dimbali askan wi. asalaamaaleykum mbooloo mi donc ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam euh, di leen gërëm euh, di leen sant tamit ci dalal bi ngeen ñu dalal donc comme ni ngeen ko gisee nii fondation Mbagnick présent ba Mbagnick Diop moo ñëwoon tey seet si leen donc ci mbas mi nga xamante ni depuis ñetti weer jàpp ñeent mi ngi lëmb réew mi donc ñu ñëw ak suñu as ak suñu yéene si yéen. n'est-ce pas donc xam nañ ne boobu ba léegi yéen a ngi ci góorgóorlu xaw na ànd ak tuuti ay jafe-jafe ak yooyu moo tax keroog ba ñu saytoo ñu comme que ñu ngi nekk ci social te président Mbagnick Diop koo xam-xam ne ci social lay def moo tax tey ñu daal di ñëwoon indil leen comme ni nga ko gisee ni indil nañ leen euh, masque yi nga xamante ne mooy masque de protection xam na après ci kanam tuuti dinañ jël benn xale wan ko naka la ñuy takkee masque yi bu ko defee ngir ñëpp ñi nga xamante ni dese woon nañ ko miin wala yooyu man koo mën koo xam euh, indi lañ leen également gel hydroalcoolique yi nga xamante ni moom la ñu santaane ak gel yi nga xamante ni raxas loxo la maanaam boo génnee ba dugg si wala balaa ngay génn nga raxas sa loxo ba mu set ak gel euh, lave-mains bi soo paree nga jël jël gel hydroalcoolique bi laal ko boobu dina la mën a protéger incha allah ba ba ngay dellu siwaat ak jàmm te itam boo dellu siwaatee tànk buy tegu ci bunt bi rek na njëkk ci nga njiitu ji dem raxas sa loxo bi soo ko raxasee jëlaat gel hydroalcoolique bi teg ko ci bu ko defee masque bi moom nañu saxoo ak moom ci biir tam di nga gis saabu saabu comme que saabu ordinaire bi moom la gars yi gën a recommandé ci itam fii ay suñuy rakk ñoo fi nekk ay tuuti tànk ay ndongo daara ñu jéem leen daal incha allah jàppale comme ni jàppale suñu bopp kenn ku ci nekk def xeex bi xeexu boppam donc comme ni ko euh, président ba ñu defee incha allah ko defee ñun ñëpp rek ñu àndandoo si incha allah euh, di gërëm fondation bi nga xamante ne gis nga naaj bi tàngee mais boobu ba léegi ñu ngi jàpp teew bàyyi ñu ngi nekk guddi ak bëccëg am si ay passif nañ am yeneen activité mais teewul ñoom euh, li leen ñor mooy social bi nga xamante ne moom la seen président fondateur di ñu ànd ci ak moom donc di gërëm ñoom ñëpp di leen sant di leen wax ni que seen loo mi ngi noonu incha allah xam naa du ñàkk fii ak ay jëmi jamono dinañ leen seetiwaat ak yeneen i bagage incha allah. Euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen wax ni li ngeen def nii baax na trop ñu leen di ñaanal yàlla na yàlla jëmal seen association bi si kanam yokk seen président bi defal ko jàmm li ngeen defal ñu kontaan nañ si lool baax na tamit ndax ku la jox masque jox la zel kooku bëggul dara dal la kon ñu ngi leen ciy sant bu baax ndax fii seen rek ñoo fi nekk seen rakk ak seen i jarbaat kon donc dañ leen di ñaanal yàlla yokk leen si kanam yokk seeni doole macha allah. door dellu sàkku ñaan ñaan yàlla fu mu nangul nu lépp luñ ko ñaan seytaane de yàq xel di soppi xalaat di féewale àndandoo dal bu mu laal yaay yéen xaaleel réew mi ni laa ko. ñu ngi dajax président euh, kii Roger Mendy ancien international de football. moom xaritu Mbagnick Diop la depuis des années ñu profité occasion bi tajax moom si marché bi ñu may ko benn masque joxaale ko benn gel bon ñu doon ko laaj parce que ñu dañ doon sensibiliser si waa marché bi pour rapport mbas mi waaw si fondation Mbagnick Diop bi léegi ñu doon la laaj contribution sax sama contribution mooy que euh, déjà ñi nga xam ne dañuy bàyyi seen yitte di jàppale nit ñi di jéem a sensibiliser nit ñi ci feebar bi mooy affaire lu bu baax te moom depuis bu ma ko xañee ba léegi boobu xale la ay xale loonu sax parce que li ma ko maggee bariwul mu nekk nit koo xam ni du dugg ci dara loo xam ni affaire am rek la. moom lépp lu mu def boole na ci nit ñi parce que xam naa ko bu baax mu nekk affaire bu rafet. surtout lii nag ci feebar bi actuellement c'est dommage on est là dans ce marché normalement taxaw bi ñu taxaw nii sax wóorul te baaxul mais comme ñun ñaa ngi seen i masque affaire yooyu on peut on peut le comprendre un petit peu c'est-à-dire que ku jóg di def lu baax yàlla lu baax rek la lay fay yéen it yàlla rek lu baax la lay fay c'est-à-dire que c'est très très important président xalaat lu mel nii di ci jéem a jàppale doomu sénégalais parce que tey bu leen ma laaj sama avis tey dama d'accord ak yéen d'accord ak moom parce que tey lépp loo xam ni wërgu yaram la te du faat bakkan ku la ci jàppale nga war a sant yàlla kon œuvre bu baax la œuvre bu baax ngeen di doxe continuer nii yaa ngi dégga lu doone bu di ngeen dem ba sori ba sori waat parce que di ngeen dem ba dekk sax ay mag ngeen di xam ni moom moo leen yabal waaye yéen a ngay def lu baax parce que sensibilisation dafa baax ñun dëkk bi xam nga ñëpp fit la ñuy demee mais sensibilisation dafa baax di wax ne mu aadama yi que amul am naag fagoro moo gën faju te yéen moom ngeen di def kon nag nañu yéen fagaru def dañu ñëw tey fii pour sensibiliser waa marché bi ñu am occasion daje fi Pape Amadou Gueye. voilà merci beaucoup euh, cher confrère maa ngi nuyu au passage le président Mbagnick Diop. vous savez gis nga Sénégal boo compter les cinq hommes de valeur dans ce pays da nga ciy boole président Mbagnick euh, li ma gën a neex ci moom mooy son appui à la jeunesse li muy def les les les l'emploi la yi muy def di créer donc mu ngi innover donc en quelque sorte mu ngi jàppale président mu ngi jàppale président Macky Sall bu baax kon tey bu fekkee Sénégal toll na fii confinement bi ñu jóge ci ay allègement assouplissement muy accompagner état bi ci distribuer ay masques distribuer gel te ñëpp xam nañu réew mi neexul mais il se sacrifie comme d'habitude jël xaalisam def tey lii ngeen def nii wane ni ni wax dëgg yàlla c'est un homme de l'ombre deful bruit et je li ngeen ko defee fii def ngeen ko ci ay marché yu bare def ngeen ko ci ay daral def ngeen ko ci ay rencontre lieu de de rencontre de jeunes ci daara yi donc terrain de jeu yi ainsi de suite donc lii mbañu def je pense que Sénégal yi war nañu jóg tam def ko accompagner ko parce que la maladie est là il faut Sénégalais yi xam ne maladie baa ngi fi te day rey biñ ci mën a sàmm mooy takk ak masque def ay gel comme ni ko président Mbagnick Diop di ko di ko di ko di ko defee nii kon nag vraiment tey ñëwuma sax wax en tant que journaliste damay wax en tant que un sénégalais boo gis li président Mbagnick Diop di liggéey ci réew mi di ko liggéeyal xale yi di ko liggéeyal askan bi di ko jàppale surtout ndaw yi ci seen xëy te ndaw yi ku leen jàppale ci seen xëy jàppale leen jàppale nga waajur yi tey ngi nii yéen ngi ñëw ci marché bi yéen a ngi distribué ay gel yéen a ngi distribué ay masque nit ñëpp rafetlu nañ ko jaaykat yi rafetlu nañ ko jëndkat yi rafetlu nañ ko donc nag fondation Mbagnick Diop ca kaw ci kanam donc euh, di leen wax du courage yéen tamit ne ñëpp fagaru restez chez les masques et lavez-vous avec du savon ou avec un seen liggéey rafet na bu baax a baax a baax ndax euh, fi mu toll nii situation yi kenn ku nekk xam na ne métti na lool ndax yéen tamit yéen ngi bay seen waar quoi parce que feebar bi dafa lëmbee àddina bi nekk loo xam ne ñëpp la jàpp te économique réew mi ba kenn mu dul liggéey ndax fi mu toll ñëpp si ñëpp képp koo xam ne Sénégal nga rek eh, yënga yënga mbas mi kon donc loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax euh, di ñaan yàlla euh, yàlla gën leen taxaw gën leen jàppale waaw parce que fi ñu toll nii dafa nekk fee loo xam ne dafa jàpp addina bi addina bi yëpp la jàpp waaw nit ñi fi ñu toll nii ñëpp a sonn fi ñu toll nii waaw vraiment loolu nekk na lu rafet quoi waaw parce que fi ñu bu mën a bu mën a def daj sax ba client yi sax da ciy am solo nga xam ne client bu yëg si oto bi dañ la mën a jox nga laal raxasu say loxo boo yoru saabu bi ñu la nga raxasu loolu yaakaar naa dina am solo waaw loolu moom rafetlu nañ ko baax a baax a baax ah, di ñaan yàlla yàlla jàppale leen ah, laaj laa tamit sa xalaat ci li nga xam ne bu baax di leen gërëm di leen ziare ci eh, lu rafet li nga xamante ni jóge ngeen ngir def ko ngir xeex coronavirus bi nga xam ne mooy xew ci moom adduna bi yëpp ndax loolu ko def ku nekk ñun safar si ñun nga ci jàppale ndax safar boo gis ku ne am nga ndey am nga baay am ngay doom am nga itam ay apprenti te set moom képp ku la ci woo rek wane la ci lu baax kon su ngeen jógee fondation Mbane Diop loolu ñun dañ leen yéen bu baax a baax te leen jàppale bu baax a baax a ndax am na njëriñ ndax lu am njëriñ la ñuy wër kon nag buñ gisee kuy di wut lu am njëriñ dañ cey ànd dañ cey ànd ak moom jàppale leen bu baax corona bi corona bi nag ñu ngi koy daw bu baax lañ ci man ñu ngi koy daw liñ koy foo na fekk ñoo ngi seen i masque apprenti yi ñu ngi seen ministre bi joxoon nañu ay ay ay ay sel ak ak ay masque yëpp apprenti yëpp dañ koy tekk client yi itam leen laalal sel am nañu itam kii ba nga xam ne moom la ñuy seete waaw thermoflash yëpp am nañ ko kon nag su ngeen déplacé wu ñëw ngir jàppale ci loolu ci feebar bi nga xam ne moo doon adduna bi dañ ci kontaan ànd ci ak yéen fas lañ yéen a jàppale ci lépp lu ngeen nekkit ñu fas yéen ànd ak yéen rafetlu nañ li nga wax nii bu baax a baax a baax a baax nit ki moom képp ku koy jàppale ci wér-gu-yaramam war na laa sant bu baax gërëm la rawatina nag mooy jàppale la mooy jàppale sama bopp mooy jàppale keneen ndax Sénégal suñu Sénégal bu suuxee kenn du génn ñun ñëpp ci biir la ñuy des kon it li ngeen di def moom rafetlu nañ ko bu baax rafetlu nañ ko bu baax a baax di leen ñaanal rek fi ngeen fi ngeen jëm yéen ko xam yal na leen fa yàlla suñu borom yeggale lii moom rafetlu nañ ko bu baax ndax it sàmm sa bopp sàmm sam bopp benn la moo la ko joxee wala ma jox la ko nga jox ma ko ma yóbbu ko sama kër ñu tas ko mu gën a laaw bu boobaa nu muy dem du ñëpp ci ñëpp lay métti kon nag képp ku lay fàggandil loolu da nga cee war a da cee war a gën a sawar gën cee kontaan li ngeen def rafetlu nañ ko bu baax kontaan nañ ci bu baax a baax te ñëpp buñ defoon nii yaakaar naa dëkk bi mën nañ ne ni mu lawee nii du fi lawee ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ñaanal yàlla tànk yi ngeen ñëwee fii yàlla na ko yàlla def mu nekk tànk yiw tànk tuyaaba. ne mooy seen kilifa it euh, yónni leen ngeen def lu baax lii ànd ak moom yàlla na ko yàlla taxaw seen fondation bi nga xamante ne nii yéen a ngi ci yàlla na leen ci yàlla jàppale boobu ñu ngeen di fu ne ci àdduna bi. barke alquran yàlla mën na ko te am na kattan boobu. Euh, Magic nag yàgg naa ko dégg ndax maa ngi ko dégg si sama xarit bi kii Gora Diop imam Gora Diop waaw waaye wax dëgg yàlla mm, Magic bi yàgg naa dégg turam yàgg naa Opération Dan Corona avec la Fondation Mbagnick qui a sillonné Dakar et la banlieue pour offrir des milliers de masques, des centaines de gels hydroalcooliques, des centaines de gels lave plusieurs cartons de savon afin de soulager plusieurs daras, le marché aux poissons de Grand Médine, les habitants de la station Total de la Patte d'Oie, entre autres sites visités par la Fondation Banik Diop. Pour rappel, la Fondation Banik Diop existe depuis une dizaine d'années avec un plan d'action qu'elle déroule chaque année entre le soutien aux demandeurs d'emploi, les distributions de kits Ndogo à chaque mois de Ramadan, les dons de sang, etc. Des actions à saluer et des encouragements à ces dizaines de jeunes de la Fondation qui se donnent sans compter pour soutenir des compatriotes. di ñaan yàlla mu nangul nu lépp ko ñaan seytaane day yàq xel di soppi xalaat di féewale àndandoo ñu dal bu mu laal yaay yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëgg